jaa jëfa tey jaa jëfa tey sama gars yi Mister Shake la maa ngi ni Brooklyn New York waaw gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci meetingu Yewwi Askan bi ñu gis ne sëñ Moustapha si vraiment vraiment gàcce nga ngaalama sëñ Moustapha si wax dëgg mobilisation Tivaouane bi gis nañu lu on a vu une grande mobilisation à Tivaouane avec Serigne Moustapha Sy vraiment un meeting qui a réussi un meeting qui a réussi à mobiliser le tout Tivaouane vraiment suñu kal, vraiment euh, sunu suñu xol sedd na Moustapha Sy Moustapha parce que vous avez rehaussé le meeting par votre présence. N'est-ce pas Vous avez béni cette euh, assemblée d'illustres politiciens par votre charisme, n'est-ce pas Par votre sagesse. Vraiment, man, gars, c'est Moustapha si vraiment, de faut mériter un cœur bari bari bari bari. wax dëgg patriote dëgg ni lay mel gars yi tey dama ñëw dafa vidéo tu ci loolu bëgg aussi wax ci ci Sonko tontu bi mu euh, Tu euh, ci discours bi def

Sonko ak gouvernement bi ñoom ñom la ñom ñekk yem man nak bamuy wax lolu Sonko bamuy wax lolu dama faté won kan moko wax waye demba demba ba Issa Diène tégaté lolu tégaté Sonko di wax lolu ci la dem def recherche sama xel ne Bouba Ndour la wara doon comprendre nga ci la dem gis jakarlo bo xamné du Bouba Ndour lolu doon wax mu ne dafa expliquer mu ne vraiment violence bokoy xol ci Sonko lay jóge mais jógewul ci opposition bi ñom Khalifa Sall sen yoon nekku ci mel na dafa bëgg féewale yow askan bi loolu dinaa ci wax <coughs> mais avant may wax loolu encore une fois des cœurs des cœurs ak Moustapha Sy ndax bu ko neexoon ak parti pur bi am bu ko mu def mu pire encore bu ko neexoon mu président Macky Sall bon Bokk def comme sëñ ne Macky Sall mais moom sëñ Moustapha Sy gisul milliards mais de dafa jiital Sénégal vraiment on peut dire qu'il a dignement hérité n'est-ce pas des enseignements n'est-ce pas il est le digne héritier de son père Al Martoum gis nañ doomam tamit capitaine wax fa wax ay wax yu rafet nee ndam li suñu bakken lañ ci tek vraiment vraiment man gay, xawma sax tan yep mangi mangi maa ngi Moustapha Sy parce que man dama yaakaaroon ne sëñ Moustapha Sy amna nu muy démé amna nu muy démé ñu dem ba ci bir mu bayyi Euh, yow askan du question daf ñoo wor mais comme moom sëriñ la comme moom dafa mystique man dama doon ragal mu dem ba ci biir ne ah yàlla wan na ma ay mbir ne daal sama yoon nekku ci politique mais malheureusement xaw ma naan heureusement heureusement <coughs> heureusement moom ci boppam dafa ne ay góor lañu gis nga dama ko jëlal ay not li mu wax sax dafa bëri waaw tudd na bu tudd président Sonko Ousmane Sonko ñaari yoon wala ñetti yoon ci discours am tudd ay Mbodj tudd Khalifa Sall mu def fa ay révélation

nit yu baax yëpp muy kilifa diini kilifa aada yu bëri dee nañ ba pare borom xaalis yu bëri dee nañ ci nguuru Macky Sall moo tax mu ne nguuru fétiche la Sénégal dëkku leer la waaye nguuru Macky Sall nguuru fétiche la Macky Sall li mu yàq moo ëpp moom nee na euh, kii la mës doon opposant la mës doon waaw euh, lan la waxati mais nee na bu ñu ragal parce que dund ak dee moo am waaw moom nee na Serigne Cheikh Tidiane nee na ki lay tëkku. xamoo ndax moo lay jiitu si bàmmeel ba comme Macky Sall bu fekkee dafa bëgg faagagal nit ñi moom xamul ndax moom mooy jiital jiitu Sonko ci bàmmeel ba ndax Sonko ñëpp xam nañu temps yi dañu wax ne dañ koy bëgg a rey Papa Allé wax na dafa am benn bal perdu bu ñu ko bëgg dóor ñi di wax ay affaire voiture blende mais gis nga sëñ Moustapha Sy lu mu wax xam nga ki lay tëkku am na nu mu demee moo lay njëkk ci bàmmeel ba waaw moom nee na yëg nañu lépp ñi ñu neexal on s'en fiche ñu mel ne Djibril Ngom ñu mel ne Djibril Ngom dem nekk ay jaam Macky Sall di leen jox xaalis di leen recevoir pale mais moom nee na on s'en fiche na ñëpp téye rek bañ a bay waaw lan la wax di maa ngi xool euh, seen meeting bi yee passé na ñëpp takku ni ñu jàppee dakaar ak Tivaouane ni ñu jàppee ko feneen fépp waaw kenn bañ a tayal li ko wax ci tête de liste principe na euh, euh, na na tax nga dugg parce que dafa am ñoo xam ne dañu bokk ci Pastef wala bokk feneen dem ba ci biir defuloo ma tête de liste kon du ma dem campagne du def lii du ma def laa sëñ Moustapha Sy nag ne bu fekkee ne da dugg ngir pas-pas ak ak ak loo gëm ngëm-ngëm doo bay waaw lan waxati euh, waaw doomam ci la jël capitaine def naa moom du ci doomam moom daal li mu wax moom nee ne nguur gi nguur gi nguur gi euh, ndam li dañ koy am par force nañu jaral suñu bakken amna ño xamne bo andul ak ñom comme sëñ Moustapha si wax ko papa wax na nga war nga xoolaat sen bop kon dal mën naa jeexal foofu ci sëñ Moustapha si di wax ne vraiment ñun contane nañ ci mom vraiment contane nañ ci moom din pure mobilisation bi fess na del meeting bi réussir na Macky Sall tiit na motax mu jaxoso gis nañ ko Macky Sall mu dem Daara Jolof luga vraiment meeting bo xamne kenn nekku fa vraiment li def ruslo APR ah dëkk boo xam ne Moustapha Diop fa nekk defe naa Mamour jàll mi ngi fa mais ñoom dafa mel ne taluñu Macky Sall ku nekk yaa ngi politique su bopp wala waa waa Macky Sall su boppam waa luga ñoo ko ñoo ko weddi ndax ngay def euh, meeting def sa tante bu rëy mais chaise yi kenn ñëwul kenn toogul lii nag daf lay wan ne nguuru Macky Sall mooy jeex Sonko nag ni mu ko waxee loolu tax Macky Sall bëgg bëgg taal réew mi loolu tax Macky Sall bëgg daq élection yi bëgg indi premier ministre ne dafay def

bu dee Khalifa Sall mooy dem Casamance loolu dafa am mais Sonko des fois dafa mel ne day ni mu waxee daal wax na bu tudd provocation mel na Sonko day provoqué alors que ñëpp gis nañ ne li am Casamance ñëpp ko gis nañ ne Casamance Doudou Ka moo ñëw def lu muy def ñaari yoon kon nag Sonko bu demee bay attaqué Bouba Ndour dafa lay wan ne Sonko Sonko ah ragalul nitu dëgg la Moustapha Sy wax na ko sax parce que Moustapha sëñ Moustapha Sy neen Sonko dafa day ñëw discours bi rek wax tuuti du wax dara

vidé wuñ ko maanaam tant que euh, euh, euh, woowuñu Sonko tribunal Sénégal du am jàmm fii bu ba 2024 waaye Bouba Ndour yow dafa mel ne doo xalaat wax naa la aji Sarr Sonko kenn dootu ko woo tribunal parce que buñ ko <laughs> woowee tribunal ci la dëkk bi di tàkk nag yooyu yaa ngi yaa ngi contredire sa bopp am nañu doyen de juge bu bees bu tudd Mahamad Diallo xaw ma Mahamad Diallo la tudd léegi nag woo Sonko te kook dégg naa doyen juge bi ci boppam man gis naa kay soof mu génne ay

TFM ndax Mouhamed Ndiaye du journaliste du dara waaw man nag li may wax foofu mooy mais bu ñu ko invité day dem jomaay war doowul làmminam jomaay teewul làmminam bu ñu ko waxee lu ñu war wax mu mu ridiculiser leen ndax keroog jomaay moo gagné moo am ndam yéen a ngi wax mel na jomaay dañ kaa toroxal mais Mouhamed Ndiaye bu coupé jomaay toroxalul jomaay boppam la toroxal ndax jomaay daf ko jàpp ci ci fenn parce que Mouhamed Ndiaye dafa wax ne ne lu tax Sonko warul rafetal même bu fekkee ne li muy wax sax du ko def lu warul rafetal rek mu ne dinaa wala comme daal xëy na la bëggoon ci affaire non violence léegi nag jomaay ne ko ñun du ñu defee du ñu Sonko du ñëw di fen nit ñi di wax ne lii laay def ba pare dem def leneen voilà mais nag ñoom dañ ne daal ñoom Sonko war nañu xool balaa ñuy dem TFM ndax Sonko mus fa dem quartier général war defar war a wax ci livre paps ñoom ñoom kii euh, euh, kooku Diallo ndaw si Diallo fàtt naa sax nu mu tudd euh, Binta jàlloo ak Ndoye Bane ñoo fa nekkoon laajuñu ko sax ci livre waaye Sonko fexe na ba wax ci livre am kon TFM du télé boo xam ne dafa ànd ak patriote voilà gars yi bi lii benn zapping bu ndaw la bu mu leen bëggoon defal pour wax leen ne vraiment ñoom Sonko daal ñoom ñu ngi dox ci kaw Macky waaw ñu ngi dox ci kaw Macky def nañu seen meeting d'investiture Dakar ak Barthélemy mu réussir bu tuwaawoon bi gëna rafet gëna a réussir Sonko wax lu muy wax ñu gis mak sala mom fimu nek dafa jaxoso ah di wat premier ministre di recevoir jam bu melni Jibril Ngom diko jox xaliss vraiment mom xamna na jéxal na waaw xamna na jéxal na ñun nak activiste yi du ñu du tax ñu ne activiste yépp dañu wara def say tamit top ci ginnaaw ñii Sonko mom ku top ci ginaam yaay perte wuñu ay. ñoom Damboj wala ñoom Clédor euh, euh, ak euh, Karim Xrum Xax seen coalition le peuple ak Cheikh Omar jaaj ñu ñuy wax naan dañu war a ut di woote ak suñuy téléphone du ñëw ba fii di changé ni ñuy vote ni ñuy voté ñoom kay ñoom ñoo war a nekk ci ginnaaw Sonko wax ne Macky Sall li muy def pour daq élection yi du jàll wax yëpp loolu la parce que élection yi ñëpp xam nañ ne Macky Sall da koy sàcc kon nag doon la xaar ba heure bi ngeen ñuy wax ne am ngeen ordinateur bu bees am ngeen ay logiciel yu bees xam nga fichier bi fii lañ koy dugal ñun ñëpp toog seen kër ñu woote ak seen téléphone gis nga waxoon naa ne Sonko du leen sax tontu Ousmane Sonko du leen tontu Macky Sall du leen tontu ndax Macky Sall li muy am ci lay sàccee Macky Sall du xaar mu des ñaari weer mu naan da leen di dégg da ngeen di ñëw indi ay ordinateur ngir ñu dàq élection yi ndax ñaari ñaari weer munoo def lépp ci ordinateur loolu ay waxu naxa saxanag la ñu nag activistes yi li ñu leen di xaar mooy ñu ñëpp def say ñu dal ci kaw Macky Sall ndax bëggul Sénégal ndax bu bëggoon Sénégal du recevoir Djibril Ngom di ñu saaga jël xaalis bi teg ko nii ñëpp di gis pour wan nit ñi ku bëgg xaalis rek ñëwal loolu moo tax ñu jël saagu xaalis bi teg ko ñoom lépp lu ñu def xam nañ ko waaw lii nag dafa ñaaw Macky Sall leen rek moo il faut ñu jëlee ko fi man wax duma sax ay waxu élection élection yi moom bu ko sàccee wala mu puus ko du eggali mandaam wax ji loolu la activiste yëpp war a wax gars yi like leen partage leen abonné leen Mister ci kanamee heure 7 heures heure Sénégal ñu di continuer def ci live jaajëf vive le président Sonko vive le Sénégal